professeur Babacar Gueye bu société civile bu Sénégal ndi gisee ndax dafa jàpp ne daal na mu waroon demee seetub askan wi ñu ca bari dund ca gis seen bopp ndax ni nu ko waxee lu néew yu wote ji professeur Babacar Gueye Ibrahima Kane Mor Xarma situation bi ñu am jàpp naa ne assemblée bii di ñëw dina xaw a am tuuti euh, difficulté parce que euh, ci benn wàll am nañu président ba nga xam ne euh, dañ ko élire élection bu rafet ak taux de participation bu doy ak score bu nga xam ne macha allah ci beneen wàll yi ñu am assemblée nationale bu nga xam ne euh, élire nañ ko gaa waaye taux de participation bi demeewul noonu euh, moo tax dama ragal moo am déséquilibre léegi nag déséquilibre moom mën nañ ko surmonter gaa mun nañ ko surmonter waaye ci kaw assemblée nationale bi daal di takk takk ndiggam takk fitam taxawal askan wi. bañ a doon rek assemblée bu ñu tàccu